yàlla ko ko wax ñun amuñu justice boobu justice amul Sénégal démocratie amul Sénégal balaa ngeen koy xam soxlawul sax ngeen di voyager léegi da di toog seen dëkk di gis ni Sénégal amul justice France lépp lañu ñu taal maanaam nekkuñu fi sax di di génne benn par benn taal nañ tramway taal nañ train lakk nañ dix mille dix mille magasin magasin yëpp lañ taal toj lépp rajaxe lépp jël xoolal magasin HM magasin Zara magasin Hayla booy armurerie yi sax dajji nañ ko booy yi armurerie yi dajji nañ ko jël ay matériel booy lépp lañ dajji nañ sax ay oto conceptionneur de voiture ñu dugg dajji ko génn ay too booy ëpp ñu ñu fidde xoolal barke alxuraan booy yi ñun ñoo leen woon xeex bi suñu booy yi dóor nañ fi police ba nangu oto police bi di daw ak moom gis ngeen ko fi blende bi di daw ak moom booy dóor nañ police fii ba dàqe leen dugg ci nangu blende bi di daw moom booy booy France yi ñu ngi koy def parce que ñoom dañu leen dul rey dañ leen téerewul dëkk bi moo am démocratie justice bi day taxawee nii bokkul ak ñoom boo fa reyee kenn justice bi taxaw boo fa reyee benn manifestant justice bi taxaw justice bi du auto-saisir bu ko Macky Sall di wax defal ñoom loolu amul France moo tax justice bi bu leen Macron laajee ne pour ñu autosaisir dañ ne ñoo lànk soxlawuñ du fi autosaisir yow yaay lijjanti affaire bi émeute ñun ñun justice suñu yoon nekku ci tandis que chez nous Macky Sall moo naan procureur autosaisir procureur autosaisir ñuy wax ay waxu yàq booy yàq on va les traquer on va les traquer xam ñoom dañoo mën a nappaate ñoom te duñu dara ay weñ ci dayu nag lañ fu tooy ñu tag weñ ci day nag man balaa maa dee ñiy nappaate quoi napp te duñu dara man dama leen di xool nii man man nag moom amuñu benn représentativité devant mes moo tax man awma benn cër ci ñoom bu ma la gisee ñuy nappaate nii damay toog di ree quoi man dafa damay toog nii rek gis ci internet bi ah comme du ma seetaan seen télé gis nga am na maa ngi nii du ma seetaan télé man maa ngi ci américain man maa ngi euh, maa ngi ci maa ngi maa ngi ci high level quoi vraiment new ma di déglu ay Mamadou nu mu tëddee si xaw ma lan njaay bu TFM mag ay yooyu ay journaliste lañ quoi aw ma seen jot ay ay ñooñu newoon ci maam yaxi laalo maam yaxi laalo dikkati na muy tournée ñu ñu ne journaliste la rëy la miñ toog ci média yi lépp Sénégal moom kenn mënu xam kuy journaliste ak ku dul kuy journaliste kenn xam comprendre da ngay gis ku doon. mannequinat sax mujje doon journaliste ku doon def ay ay maam yaxi laalo ay lu mu ay sketch mujj doon journaliste ay <laughs> Sénégal moom sa waay c'est le bordel c'est le moom euh, symbole de médiocrité ci seen média yi moo tax du ma du di seetaan comme yu gars yi di def nii dem di jëli ay kii yeeg ñëw ñëw ñëw di di installé ak ay Assane Gaye ak ay oh, oh, man mu leen toogee léegi léegi nag man man seen dirigeant yi dama leen di xool ni di ree bu ma gisee benn kii bi génn Antoine ñàkk jom génn waaw bon ubbi nañ ay enquête on va essayer de voir euh, euh, kan moo rey euh, de situer la situation man dama toog nii di xool di ree <laughs> parce que man man li Sénégalais di gis ak ñi may gis ci ñi bokkut man damay gis benn doomu xaraam kii am na beneen frère si daa biiral yaayam doomi xaraam a ngi nii taxaw di wax ak ñoom doomi xaraam ji mooy jël euh, euh, mo cagala ay moromu yaayam rek lay jël wala juubul jekki yi kat la ak kooyam bu ndaw wu ndaalu rek la fi nekkee dama sama man sama man laa gis nit benn benn guignol gis quoi buy menacé waaw benn guignol waaw ba mu taxee <laughs> waaw waaw waaw Mamadou Mouhamed Ndiaye moo ne woon maam yaxi laalo ay ñoom mëxa rek ma <laughs> joojoog <laughs> mi ngi naan donc bu ma toogee di gis ñooñu man ñooñu amuñu benn représentativité devant mes yeux dama leen xool nii nii rek sax xool moo tax seen dara safuma seen wax dara duggum dara